Zaida Mariam ñass bokku na si ñi nga xamante ni gën nañoo fës gën a am solo si biir réew mi ya. ñi nga xamante ni duñ leen mos a fàtte doon na koo xamante référence la si wàllum njàngam alxuraan si Sénégal ak si biir àddina bi yépp mu daal di gani si àddina si atub 1932 foofu ca si mu nekk benn dëkk boo xamante ni soriwul dara Kaolack Zeyda Mariam ñass teel a jàngi lii di alxuraan ni nga xamante ni noonu la ko way juróom bu góor di El Ibrahim Ibrahima Niass bëggee jangal doomam jigéen alquran matuñoo dal jàng sax mu dalal ñu si loolu nag ginnaaw ba mu amee juróomi at si la dugg si daara ji nga xamante ni moom moo di daara Mohamed Ould Rabbani mu doon borom xam mu dalal ñu si loolu nag ginnaaw ba mu amee juróomi at si la dugg si daara ji nga xamante ni moom moo di daara Mohamed Ould mu doon borom xam-xam bu mag nekk foofu ca Mauritanie moom nag moo doon jàngal alquran si ñu bëri si doomu Baay Ñas ñoo ma ko Mumidi tax ko ci kanam mbooloo ci minal baqara ila naas moom mii di Seyda Mariam lu yàgg rek ngir mën a bokk si ñi dañuy islam ay dignitaires yu ràññeeku si wàllum arab daal di ko jàppale ba mu gën a yaatal ci atum 1984 lii di daara yi nga xamante ni la sosoon si loolu nag si la enseignement général bi mu daal di créer complexe Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass bu nekk Padoua xadimatul Quran ñu ko gotoon woowee Seyda Mariam Niass daal dina tukki tukki yu bëri àddina bi si mission am nag nekkoon gën a yaatal lii di lislaam ak jàngale alquran moom nag daal dina jot ay distinction yu bëri si biir réew mi ak si biir addina bi yëpp mu doonoon référence si biir réew mi ak si biir àddina bi yëpp Seyda Mariama Niass daal dina wàcc liggéey si ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre 2020